mais ça ça peut se comprendre comment. parce que. da nga koy wutal circonstances atténuantes. non du tout moi je ne cherche jamais des circonstances atténuantes j'assume les circonstances dans lesquelles j'ai agi man lu ma def dama naan maa ko def. lii moo tax ma def ko ça peut se comprendre. oui mais parce que parce que dafa defoon ne affaire bi fowukaay la. dañu defoon ne président da ngay ñëw rek avec ça marche comme sur du rek nga ñëw taxaw ne nangam ak nangam déedéet xam na ne du noonu. sëgg bi yombul for bi yombul parce que li ngay for sax nga gisul moo tax situation bi ñu nekk nii man li ma loon waroon conseiller ñoom fi mu toll nii mooy ñu dal toog xool ubbi seen bët di xool rek tàllal seen nopp di déglu rek bu ñu gisul dégguñu ñuy xeeñtu ba xam li ñu war a def yépp soo ko taxaw wax mais fi mu jëm nii bu continuer nii dans six mois ce sera la catastrophe hmm? waaw c'est-à-dire. parce que de conflits lay indi xam nga loolu mooy conflit xam nga conflit li ci gën mooy nga prévoir ko on n'attend pas les conflits moo tax parfois ñu perception ci ni ngeen koy wax ak di ngeen ko parce que xamu leen bokk xamu leen li xew ci ñun mais loolu problème bi mooy mois je suggère au président de la République de prendre une orientation calme de la situation. regarder de très près ce qu'il faut faire moom na ay orientation claire parce que projet bi clairul yow sax xam nga ne projet bi clairul parce que on s'est rendu compte amul parce que nee nañ projet bi pareewul maintenant mais moom am na loo xam ne lii war na ko mën a bëgg pour réewam parce que ni nga bëggee réew mi ni ma bëggee réew mi moom noonu la ko bëggee. non euh, ñoom nee nañu projet bi euh, euh, clair na nee nañ la la la partie adaptée du projet aux réalités. Eh, macroéconomique nee nañu lool la ñu nekk. Eh, ah, di defar ñoom ah, ñoom il ne savait pas la la situation macroéconomique du pays loolu wax la Ousmane Sonko président du PASTEF député à l'Assemblée nationale wax a wax a wax ba député APR yi génn bàyyi ko ak assemblée bi moom kenn rek ndax lu ma xam waaye léegi mu ne xamul woon li xew yow mën nga gëm loolu. la situation macroéconomique xam nga ko yow ci dëkk bi ki nga woo ëllëg li mu réew di la wax si soixante dix pour cent yi xam nga ko parce que yaa ngi koy dund loolu du wax bi dañu defoon ni dafa yomb te yombul for ndënd yomb na mais boo amul galang boo xamul galang bi koy tëgg nga sel nga jël semiñ boo ko tëggee jeex na day bët nañu def ndànk dama leen di dama leen dama leen di ñaanal ñu réussir mais pour ñu réussir